asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu barakatuhu jërëjëfe Serigne Touba jaraw la kamaam Cheikh Ibrahima Fall Lamp waaw mbokku Sénégal tey jii nag Serigne Lamine Bara Fall nekk Géejawaay arrêt Dubales di spécialiste ci wàllu médecine traditionnelle di ko yàlla am lum ñu may baaxee ñu ko rek ci gëstu ci xam-xam ak ci baaxam ak yërmandeem pour ñu mën a jàppale askan bi ci seeni tawat tey jii nag ñu nar a waxtaanee lépp luy xet ak odeur bu nit di am ci yaramam rawatina nak ci alitose muy ci walu geminam bépp laaj bu ngeen ñu ci laaj rek ñu tontu ci sunu kéemtalaay katan ndax wolof neena daanu dajul suuf donte nak ñun dañuy spécialisé wu ci dara waaye taxul ñu xam lépp yàlla rek moo mën yaa zal jalaali wal ikram waaw cheikh bi forme yi nga xamante ni mooy yi ci gën a fës mooy xeetu gémmin ak xetu yaram xetu mauvaise haleine yi nga xamante ni ci gémmin gi lay démarré am ñoo xamante ni xet gi dañ koy sentir ci seen bakkan am na ñi nga xamante ni xet gi dañ koy sentir itim di ko yëg ci seen ay poqataan di koy yëg itim ci na ngeen ma baal ci kaddu gi muy seen diggante ñaari tànk muy wàq yi ñooñu itam dañu bëri ñoo xam te am xeetu côté yooyu xeetu poqataan ak xeetu wàq am ñoo xam te ne dañuy am xeet ci seen suufu tànk ci dëggu yi ci fa ñu day day day buuj xeet la am ñoo xam te ni seen baaraam yi diggante baaraam yi day ñaq di am xeet kon bare na nit fu muy amee xeet am ñoo xam te ni sax seen ñaq ñaq yi day am odeur kon forme yi dafa bari forme yi yaatu la lool mais ginnaaw mauvaise haleine halitose nag dafa bokk ci bi ci gën a fës nit ñi en général dañuy am problème boobu xet problème mu xetu gémmiñ moo ci gën a fës te moo ci gën a doy waar waaw jërëjëf Cheikh Babacar wàllu xet nag muy wàllu mauvaise haleine origine am origine mauvaise haleine li ci gën a bari nag mooy surtout ñàkk brosu sa bëñ am ñoo xam te ni ñoom tàmm ñu jël brosse à dents di ko brosser seen bëñ wala tàmm ñu jël socc di soccu sen bëñ di ko raxas am habitude sa bu ñu yeewoo suba li ñu war a def moy raxas sa bëñ ba mu set nek xalé tamo raxas sa bëñ ba mu set bo démé ba nek mak ko waxal mu dar gémminam ndax gémmin gi day dem ba encore day am ay infection day am ay bactéries day am yi ci nek yi nga xamanteni idim bo bu xalé mu yàgg ak yow bu dëgëré bu démé ba nek mak dotul dañati am ñoom te nag feebar la origine bi ñi ci gëna a bëri ci sen bàq lay démarrer mauvaise haleine boobu manam dañu am problème mu ulcère wala problème estomac wala ay reflux gastrique maanaam ci s'en biir ci s'en estomac faut la origine bi di ëpp ñi ñuy démarrer maanaam bu ñu consultation ñu xool causes yi la majorité ci s'en biir lay nekk li à maintenir ni mooy nem maanaam ay feebaru biir la ñuy am feebar yi nag dana bari lool pour lu koy mën indi exemple li ci gën a fes mooy ulcère ak estomac ak wàllu hémorroïde yooyu dafa nekk ay feebar yi nga xamante ni bu ko nit amee maltraité amul toppatoo ci yaramam dina ko def am ñoo xam te origine bi dafay dem ba ci wàllu ay ñi nga am ay carie dentaire ñi am carie feebaru bëñ loolu itam daf ci nekk am ñoo xam itim ne am ay problème mu daal seen fii bu ñu tëddee guddi bu ñu yeew dañu génne ay grain yu weex yi ñuy wax les candidoses yi nga dafay ànd ak daal wala bokk yi nekk seen buul yi fii put yi ay tëflit yu tax yi nekk seen put ñooñu dafay dem ba indi lu ñu naan mauvaise haleine ci wàllu odeur yi itam xetu yaram ñoo xam te dañu am xeetu yaram ba ñu nekkee xale du leen sang-sang bu set am ñoo xam ne itam duñu laal saabu ñenn ñi duñu laal njàmpe ñenn ñi tàmm sangu normalement xeetu yaram boobu daf koy indi am ñoo te ni nag liggéey côté mystique dañ leen di yàq ci wàllu mystique ba fu ñu toog dañuy am xet gu xasaw surtout jigéen ñi dañ leen di yàq ci côté boobu ñu dem dem ba ay odeur vaginale maanaam na ngeen ma baal ci kàddu gi jàngale tax a wax ak ñi ci feebar di ci gis seen bopp maanaam seen kanamu dafay dem ba sentir lu mel lu à tout moment day xasaw à tout moment day xasaw bu ñu sangoo léegi léegi léegi léegi ci toilette seen seen sexe day à tout moment te la wala yenn a ay infection yi nga xamante ni dafay am ci lu nga na ci origine nga tax odeur corporelle wala odeur halitose muy mauvaise haleine waaw type de personne yi mu concerne moom mën naa ni mën na dal ku ne ndax kenn ku nekk sa àddina bu dee benn yoon sax mos nga sentir xetu gémmin ci sa ci sa ci ci yow wala xet gu naqati ci sa yaram nit ku nekk nag bu dee benn yoon sa àddina dal na la day dal xale day dal jeeg day dal xale bu góor waxambaane day dal paa day dal mère amul ku mu dul dal mais nag feebar la nattu la lu euh, nit di teg boppam la ñàkk xam yenn saa nit dana am mauvaise haleine sax wala mu am xetu yaram sax te du xam ni moom am na ko waaye wolof njaay nee na sa sa gémmiñ xasaw na sa doomu ndey la koy wax kon képp ki nga xamante ni yaa ngi nekk ak nit mu am odeur wax ko ndànk rek ni ko mu jege ñu seet bu waxtaanee ñun danañ ko jàppale ci xeetu gémminam boobu ba mu saafarawu wala ba mu dañ tàkk ci moom incha allah ci kàttanu yàlla ci baaxu yàlla ci màggu yeneen ti bekk aminu sëriñ bi waaw symptômes yi nag euh, sëriñ bi ñu bari ci nit ñi nit ñi xamee ne dañu am mauvaise haleine wala dañu am mauvaise odeur maanaam da ngay jege nit rek ni kooku day coroxaan di fatt bakkanam wala ngay wax ak nit muy dëmmooyu wala ngay wax ak nit muy xaxtandiko di tëfli da nga koy xam wala nit ki xamante ni bu ŋaaŋee rek nit ñi di bëgg a dee xetu mbàq day xeeñ wala nit ñi nga xamante ni dañuy jël sax masque yi ñu doon waxee coronavirus ñoom ñu ci bëri léegi-léegi dañ koy tafee seen bakkan parce que dañuy xam seen bopp wala ñi nga xamante ni leen di xool seen bëñ yi day jaune day mel ne lu teg der day mel ne seen bëñ yi bër moo ci tew xam nga loolu itam sëñ bi da nekk na lu waar nga am xetu gémmin bi nga xam ni sawaay foo ubbi sa gémmin gi rek sawaay ñëpp daw loolu day yàq sa liggéey yàq say relation humaine sa teg nit ñi. foo taxaw ñu ni borom gémmiñ ko xasaw gaa ngi nii borom gémmiñ ko xenc xam nga loolu itam sëñ bi nekk na lu doy waar waaye nag yàlla baax na yàlla mooy nattu nit te mooy teg ay jàngoro kuñ ci yàlla booleel dinañ la faj ñaanal la sunu borom tàggale la ak sa xet yooyu. am ñoom te na xetu yaram la ñu am comme ni ma ko sànq xet bu xetu yaram buy xeeñ rek tànk yu buj tànk yi ñaq baaraam yi xeeñ baaraam yi dem bay weex loxo yu buj xam nga. Euh, wàq yi di xasaw na ngeen ma baal ñi nga xamante ni itam dañuy am problème mu poqataan buy xeeñ ñenn ñi ñaq bi xasaw bu fort la ñu am ñaq bi nga xamante ni sawaay dafa fort trop dafa fort trop façon parfum bu ne la ñuy laal mais buñ ko laalee sax parfum bi dafa mel ne xet gi day gën a yokk waaw bari na ci doomu aadama yi nga xamante ni moom loolu daf leen di daal ñenn ñi mante bu nekk dañ koy jéem a dugal seen gémmin pasti bu nekk dañ koy dugal seen gémmin mais buñ ko utiliser dafay gën a yokk sa gi parce que da fay wane ni rek ni kooku dafa feebar ci biir intérieurement maladie bi nekul ci lu visible ci biir biir doomu adama bi la nekk. vivre ak nit ku am xeetu mauvaise haleine wala odeur corporelle c'est très difficile rawatina nak ci couple nga ànd ak nit ngeen di liggéey bokk auto ngeen bokk li ngeen di liggéey wala ngeen di dent mu am xeetu yaram wala mu xam etu xeetu odeur nga war a xëy huit heures nekk ak moom ba guddi wala ba ba ngoon jot wala bokk ki nga xamante ni itam yéenay bokk tëdd yéenay bokk fanaan comme ni ma ko waxee léegi muy jëkkër ak jabar jëkkër ji am xetu gémmin wala jabar ji am xetu gémmin wala xetu yaram bu doy waar surtout suñu mbokk jigéen ñi nga xamante ni dañuy yeew teel di liggéey seen liggéey ñoo ngi ci marché yi ñoo ngi jaay jën ñoo ngi def nangam ñooñu lu gaaw mën nañu am xetu yaram ndax bu ñu duggee ci oto yi rek ci kaarapit ak njaga njaayee clando yi kenn du bëgg dend ak ñoom te xet yooyu ñuy am muy xetu jën dafa sëcc wala xetu yàpp dafa sëcc ñu ngi leen ñaan ñu gën a bàyyi xel ci seen yaram bu baax a baax a a baax baax képp kuy liggéey liggéey bi xam te ne am xet rek nga bàyyi xet yooyu ngay ngay yendool mu bañ di des yaram buy des sa yaram bu yàggee képp ko nekkal dalay daw wax yi ñuy wax nag jubluwuñu ci lenn lu dul faj ak dimbali nit ñu xamante ni ñoom dañ ko am ñenn ñu bari dañuy am sax mais xamuñu fan la ñu war a jëm pour faju wala nan la ñu war a def ba ñu jàppale leen kon nag loolu lañ ci jublu pour jàngale yenn wax yi suñ ko waxee ñoom ñu gis ci seen bopp bu baax xam ni yenn saa yi damay def émission ba pare sax nit ne ma Serigne Bara dafa mel na man nga don waxal ndax limay may dund te amoon kenn kuma ko wax wala fu ko waxe kon nak lool rek lañ ci ma sha allah waaw Cheikh babakar traitement bi mom bi ci gëna fess rek moy amna traitement bi xamanteni pour gemine gi la lu ñuy broso am nañu lu ñu naan pour walu bir beeg estomac yi ak amygdale ak lu ñu war naan pour infection yi ndax infection itim day tax nit ki am xet corporel day am tax itim nit am xet halitose wala mauvaise haleine amna itim ay ñaan ndax ñen ñi ci bari ci walu mauvaise haleine lañ am wala xet lañ am yenn yi liggéey la yenn ñi rab la ngelawu seytaane bu nekk seen yaram ñenn ay infection la dafa am ay ñaan ay alxuraan ay saariñ lay may yi nga xamante ne day dindi lépp luy ngelawu seytaane ci sa yaram ndax ñu bëri faju nañ ko fu bëri ci dentiste faju nañ ko ci généraliste faju nañ ko ci spécialiste def fibroscopie def rajo def échographie def nañu lu bari dem nañu sax bay faj ulcère ak estomac ci seen biir yeeg bàq yi te du wér te fekk ni traitement complet bii ñu leen di war a jox univers bio bu kër Serigne Lamine Bara Fall soo ko traité woo ci kàttanu yàlla ak baaxam ak dem lépp lu doon sa mauvaise haleine incha allahu rabbi dana dañ di leen ñaan rek ñu ñëw def consultation ñu posé diagnostic bi ndax comme ni ma ko waxee léegi gis ngeen mu yaatoo dafa yaatu te bari bu ñu defee diagnostic bi def consultation bi yooyu yëpp danañ gis fan la problème bi nekk ñu mën leen ci jàppale ba loolu saafara incha allah waaw jërëjëf Cheikh Babacar kon pour conclure rek ci wàllu mauvaise haleine képp ki nga xamante ne dal na la rek consulter ñu Nous def sa consultation consultations arrêt Dubales kër Serigne Lamine Bara Fall ticket consultation yi macha allah def nañ ci xéwal rek jël ay rendez-vous ci suñuy secrétaire ngeen collaborer ak ñoom incha Nous ñu yaru lañu ñu am taalibe lañu teg nañ leen ci diine nañ ci l'islam ba képp ku ñu yàlla booleel boo ñu rek daañu wax ak yow ci yar ci dal ak ak teranga ak sutura respecter la confidentialité des autres ci kattanu yàlla incha allahu wala ñu 77 169 45 45 77 169 45 45 77 160 93 93 Guédiaway Are Dubales Kër Serigne Lamine Barafal, inshallah nañ leen bu baax ci seen tawat ci seen jangoro ci seen ba lepp ci carton yalla ak